dal leen ak jàmm ci AGT news chaîne bi leen di jox xibaar te wóor abonné leen ngir dara bañ leen a raw. AGT news. dal leen ak jàmm mbokki internet yi AGT news. Ousmane Sonko mi ngi en garde à vue ñi ngi ko téen di ngir xool ëllëg nan lañ koy daal di dégloo door di jël aw décision ca la nga xam ne moom la ko procureur di toppee ndax dañ koy bàyyi mu ñibbi këram wala dañ koy door mandat de dépôt mu daal di dem tëddi kaso kenn xamagul nag ëllëg la lépp di leer waaye Pastef les patriotes daal dinañ def aw communiqué di naqarlu la nga xam ne teg nañ ko ci seen kaw leader ñoom ñu jàpp ne lii du leen lu dul ay décision yoo xam ne ca kaw la jógee te France loxoom jugu ci plainte ba nga xam ne Juan Branco di avocat wam déposé woon na ko ca cour pénale internationale nationale bokk na la nga xam ne moom la gars yi bëgg contrer te moom Ousmane Sonko mooy favori numéro un ci élection présidentielle yi ñu dëgmal éliminé ko moo tax a jug gars yi moo waral boobu ba léegi seen jéego yi nga xam ne ñi ngi koy daal di teg ñoom waa Pastef les patriot nag li ñu jàpp mooy président Macky Sall la mu def di renoncer ci troisième mandat ba tey jile jugu ci loolu moo nekk ci xelama loolu moo waral moom muy daal di xañ Ousmane Sonko bokkam ci yooyu la jongante Pastef les patriotes jàpp ne seen xeex jëmale ko ci état du Sénégal waaye benn système la ñuy xeex ak benn nit koo xam ne li ko tax a jug mooy noppiloo ñëpp ba def li nga xam ni moom mooy ay mbébétam rawatina nag ki nga xam ne saa su nekk mu dal ci kawam mu di Ousmane Sonko. ne nag plan bi nga xam ni Macky Sall moom la daal di tëral ci seen communiqué mooy gannaaw mu fexe ba jàpp Ousmane Sonko dafa jël nag ay charge yu bëree bëri teg ko ci kawam ngir mën koo éliminer tuuma yoo xam ne nag ñoom jàpp nañ ni yenn nervi yi nekkoon ci biir APR ñoo ko daal di def te liñ ci jublu mooy fexe ba Ousmane Sonko ñu daal di koy tëj kaso bu moytul sax ñu tëj ko giiru pour dundam mu ne nag ki nga xam ne moo di procureur bu Macky Sall moom moomee xam na bu baax a baax que ni bi mu téye Ousmane Sonko lépp li ñeel wàllum Sweet Beauté dafay daal di yàqu ca saasa amatul contumace waaye nag daf ko maintenir ndax lenn la si jublu mooy permetre ministre de l'intérieur mu daal di génne Ousmane Sonko ci liste électorale yi ci gàttal ñoom li ñu jàpp mooy candidature bu Ousmane Sonko am bokkam ci élection présidentielle yu atum 2024 liberté ma dundam waaye itam mu cëpp projet bëree bëri dañ cee daldi woon téye jàpp ci ngoy ji loolee la ñuy jéem a nasaxal jamono ji ñu toll nii moo waral ñoom waa Pastef les patriotes ci seen communiqué ñu teg ci ne l'heure est grave loolee moo tax ñoom ci seen communiqué ñu daldi wax ne li nga xam ne constitution may na leen ko muy ñu daldi résister nañ ko def ngir daldi bañ lépp loo xam ne dafa ñeel wàllum dëggate seen i àq ak seen i yelleef ba tax na ñuy woo ñi nga xam ne ñoo di sénégalais yi ñu bañ leen tànnal kii nekk seen président de la république loolee nag àq bu ñu am itam nekk tànneef boo xam ni kenn waru koo nangu ci ñoom fekkente ne Macky daa bëgg continuer daal di jéem a téye Sonko tëj ko ci kaso bi te jaarut yoon ñoom ñooñee li ñuy sàkk mooy mu daal di jóge ci bopp nguur gi nu mu gën a gaawee te la ñu jàpp mooy candidature bu Ousmane Sonko bokkam ci élection présidentielle yu atum 2024 nekkul loo xam ni dañ koy daal di négocier ba tax na ñi ngi woo sénégalais yi militants yi ak sympathisants yi rawatina nag ñi nga xam ni ñoo nekkul jamonoy discours jamonoy wax ak i jiixi jaaxaa ku ci nekk daa war a jël ay responsabilité am xeex ngir seen ëllëg loolee ci la ñuy woo képp koo xam ni da nga bokk ci ñoom tax na la ñu jeexalee seen communiqué mooy ñu ngi woo communauté internationale bi ngir ñu daal di ñaax président Macky Sall génn ci doole bi nga xam ni moom la nekkee ci réew mi te ba noppi itam jéem a fexe ba lépp luy jàmm ak salaam mu jéem koo ñoŋal ngir jéem a sàmm lépp loo xam ne dafa ñeel wàllum waxtaan jàmm ak salaam ci réewum senegal li mooy bataaxal bi nga xam ni bureau politique national bu PASTEF daal nañ koy publier jëm ci ay mbiri Ousmane Sonko AGT News Ousmane Sonko est garde à vue PASTEF patriotes a fait un communiqué que nous allons lire. Peuple sénégalais debout. Le président Ousmane Sonko a été illégalement arrêté hier chez lui en violation de tous ses droits par des éléments de la gendarmerie qui ont escaladé les murs de son domicile et défoncé sa porte, le tout sans mandat. À la suite du point de presse du procureur de la République, les motifs de son arrestation ne correspondent en rien aux faits qui lui sont maintenant reprochés. C'est une nouvelle cabale préméditée en haut lieu avec des complices en France pour contrer plainte pour crime contre l'humanité déposée par son avocat Juan Branco au niveau de la Cour pénale internationale CPI. Ayant échoué par tous les moyens à neutraliser, réduire au silence et éliminer un adversaire politique, nous faisons face à une entreprise mûrement planifiée de liquidation du favori de l'élection présidentielle de Pire, en instrumentalisant sans gêne les institutions de l'État, en particulier l'appareil répressif. Macky Sall a déclaré qu'il ne participera pas à l'élection présidentielle et pourtant il n'a à ce jour désigné aucun candidat pour son parti. Cela signifie qu'il poursuit toujours son projet de faire un troisième mandat illégalement en empêchant le président Ousmane Sonko d'y participer, quitte à mettre la paix et l'unité nationale en péril. Le combat de Pastef n'a jamais été un combat contre notre État et nos institutions, mais un combat contre un système et un homme ayant perdu toute logique qui utilise les moyens de l'État pour réduire nation et éliminer tous ceux qui s'opposent à lui et en premier le président Ousmane Sonko. Le plan de Macky Sall est simple. Après avoir réussi à déjouer la vigilance populaire pour arrêter le président Ousmane Sonko sous un fallacieux prétexte, il invente maintenant des charges allant jusqu'à l'accuser de crimes commis par les nervis de la paire contre la population sénégalaise depuis deux ans et dont le monde entier est témoin afin de le rendre inéligible, surtout afin de pouvoir l'emprisonner à vie. Le procureur de Macky Sall sait pertinemment que l'arrestation du président Ousmane Sonko anéantit les décisions dans l'affaire Sweet Beauté et casse la contumance. Mais il veut, en violation flagrante de la loi, maintenir cette contumance pour permettre au ministre de l'Intérieur de radier le président Ousmane Sonko des listes électorales. En résumé, C'est la candidature du président Ousmane Sonko, sa liberté, sa vie ainsi que la survie d'un projet auquel des millions de Sénégalais croient qui sont en jeu. L'heure est grave. Conformément à la Constitution, Pastef les Patriotes appelle tous ses membres et sympathisants à résister à l'oppression du régime pour la libération de leur leader. Pastef les Patriotes interpelle le peuple sénégalais qui lui seul a la liberté de choisir son futur président de la République, que ce droit, ce choix, cette liberté ne soit pas confisquée. Si Macky Sall s'obstine à emprisonner illégalement le président Ousmane Sonko, Pastef les Patriotes exigera son départ sans délai. La candidature du président Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle n'est pas négociable. Son éviction ne repose sur aucun fondement. Cher peuple sénégalais, chers militants, chers sympathisants, mais surtout chère jeunesse, l'heure n'est plus au discours, encore moins au doute. Chacun doit faire face à ses responsabilités. Luttons pour avoir un futur en faisant du présent un combat. Enfin, nous invitons la communauté internationale à demander à Macky de mettre fin à sa dictature pour nous épargner une situation de chaos afin de préserver la tradition de dialogue, de paix et de stabilité du Sénégal. Voici donc la communiqué de Pastef les Patriotes suite à l'arrestation de leur leader Ousmane Sonko.